daal di ñibbi ginnaaw bi ñu ko dégloo ba pare yéene kaay gi ba tey di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu li tax mbir mi garaaw te li tax mbir mi doy war mooy gendarmerie ñoom dañoo wax ne lu toll ci six cent cinquante millions la ñu fekk ci euh, boutique yu euh, Bati Plus Cheikh Yérim sekk na la ñu fa fekk maanaam ëpp na ñeent ci ay milliards maanaam dafa soriyanto ba nga xamante ni loolee moo waral nag procureur maanaam fa CNC ubbi li nga xamante ni mooy ab information judiciaire ba tey ci biir yéene kaay gi di Vox Populi mu ñu xamal nañu nag li muy sàkku mooy ab mandat de dépôt ci Cheikh Yérim Seck yéen kaay gi di source a moom dafa daal di xëy ne bu ñu waxantee dëgg li nga xamante ni daal mooy xeeñ neexul ci Cheikh Yérim Seck réew mi ko quotidien moom mu xëyit ba tey di wax ci mbir moomu daal di wax ne nag ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci wàllum tasum xibaaram moo xam reporter sans frontière la wala Synpics wala CDEPS wala sax jeune reporter ñoom ñëpp jamono ji ñoo ngi tubayul ki nga xamante ni mooy Cheikh Yérim Seck bu dee yi ñoom dañoo mer ba futu ndax lii sax gàcce boppam moo bëgg naxasal li nga mooy liberté de presse xamle nañ ko ci yéen kaay gii las ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal ñu ñi ne ñoo yëngatu ci wàllum tasum xibaar li ne moo leen naqari ci mbir mi lan moo tax enquêteurs yi di laaj Cheikh Yérim fan la jëlee ay source ma te loole nag ñu koy tere ñi nga xamante ni ñooy journaliste yi ci biir yéen kaay gi Seydi Gassama moom nag la mu a xam ne mooy société civile bi ak taskatu xabaar yi jamono ji daat nañuy jóg taxaw temm ngir nag jàppale Cheikh Yérim Seck ñu daal di bàyyi mu daal ñibbi yéen ka yi gii moom dafa daal xëy ne maa leen di wax Cheikh Yérim Seck ana lan la wax enquêteur yi nga xam ne maanaam ñoo ko doon déglu Cheikh Yérim Seck daf leen a wax na leen quatre milliards yi nga xamante ni wax naa ne gendarmerie moom la fekk ci magasin yu Bate Plus amul benn virgule boo xam ne dinaa ko ci daal leen lan moo tax ngeen may ma ko daal di tere Cheikh Yérim Seck na leen nga xamante ni moo jiite bati plus ngeen bàyyi que maanaam muy lambar lambari ci mbedd mi libre man ngeen may convoqué Cheikh Yérim na leen lan moo tax famille Farès ngeen bàyyi leen ñoom ñuy dox correctement librement man ngeen may woo ba di ma laaj samay source Cheikh Yérim na li ma gën a naqari ci mbir mi maanaam bokk na ci ministre bi ñu dénk wàllum justice moom ci ab rajo mu may daal di menacé Abdou Mbeng mi nga xam ne moo jiite section de recherche bu Colobane moom tim daat ni ki démb ci wàll wi waaye nag na Cheikh mu wax dara amu ci te xaalis bi nga xamante ni jëlee nañ ko ci bati plus xaalis boobee jox nañ ko caisse de dépôt et de consignation ñu bàyyi mbir moomee wax ci question d'actualité ca assemblée nationale Aïda Mbodj moom nag li muy sàkku mooy assemblée nationale woolu Mansour fay ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr su ko defee ñu daal leen di déglu ndax Aïda Mbodj dafa jàpp ne muy Abdoulaye Diouf saara di Mansour Faye lu ñu leen dénk maanaam am na ay luq njur am na lu ci leerul am na ay rëq-rëq yu bare bare yoo xamante ni askanu Sénégal ko di leeral la yéen kaay gii di laas na li jaaxal askanu Sénégal mooy coow lu rëy li nga xamante ni moo am ci réew mi assemblée nationale ñoom kenn déggu leen si maanaam ñu ne pata pataaral mel ni réewum Sénégal amuñu sax assemblée nationale ni nga xam ne moom la ñu yoree Covid 19 bi gestion bi ak lu soxal coowul suuf li nga xam ne mel na ni turleeg male kenn déggu ci waa assemblée nationale yéen kaay gi ba tey di laas ñu fekk fa nag député bii di Decroix moom la mu xamle nee na nag dafay sàkku ci état bu Sénégal ñu indi ay explication ci njombe geeka loox xóor ak tojaange gi nga xam ne ñoo ngi koy wax ci licence de pêche yi yéen a kaay gii di réew moom mu daal di wax ci woppi coronavirus nee na nag lu toll si juróom benn ci ay nit daan nañuy faatu ni ki démb jamono ji lu toll si ñaar fukk ak ñaar ci ay cas grave l'observateur ne en tout cas li am ba des ak li nga xam ne moom la ñu nemmeeku dafa mel ni coronavirus moom da doon feetu ni ki démb ci ndakaaru ndax nag lu toll ci fukk ak juróom-ñett daan nañuy faatu ci benn semaine rek professeur a l'observateur nee na askanu Sénégal ak bàyyeeku gi nga xamante ni askan wi bàyyeeku nañu ko maanaam lenn kese mooy tax askan wi seen xel demaat ci coronavirus maanaam ñu xëy na leen cinquante personnes faatu nañ maanaam juróom fukki nit faatu nañ benn bis loolu kese rek dong mooy tax askanu Sénégal bàyyiwaat xel li nga xam ne mooy coronavirus mara day taal yi yéen a kaay gi di direct news moom mu xëy di ñu xamal na ñu ñàkkug ndox gi nga xamante ni jamono ji moo am ci Sénégal maanaam fu waay natt daat na kay paase askanu Sénégal Sénégal nag ba Suez ñëwee ñu bëri amoon nañu yaakaar waaye jamono ji maanaam askan wi seen yaakaar moo tas te li nga xamante ni moo am ba des mooy Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum ndox mi moom dafa ne pat pataaral ci mbir mi wala naka ab incompétence maanaam ñàkku xam-xama maanaam ñàkku tële te nag soo muytulee askan wi ñooy jóg defante nag ak kilifa yi sénégalais yu bare bare jamono ji daat na ñuy réccu li nga xamante ni moo tax ñu jëlee fi SDE yéen kaay gi di Sud moom mu xëy di ñu xamal lan ñu seen o kay li mu def lenn rek maanaam marloo xamante ne nag ñooy askanu ndakaaru stade yéen kaay mu ñu xamal laan ñoo tey ji la coupe di diggante Naples bu Kalidou Koulibaly ak Juventus de Turin bu Cristiano Ronaldo yéen kaay gi xëy samp ab laaj ne est-ce que Kalidou na stoppé maanaam mën naa téye ki nga xam ne mooy Cristiano Ronaldo yéen kaay gi ne li am ba des mooy Kalidou Koulibaly bii daal mooy ab trophée bu njëkk boo xamante ni soo moytuwulee mën na kaa daal di teg loxo